ak euh, Marcel Farba Maroun la euh, Marcel. Euh, mhm. tey jii on interroge un peu l'histoire waxtaanee ci poste premier ministre indépendance ba léegi. sabab mhm. gi mooy président Macky Sall mi jël dogal. Mhm. indiwaat ko ginnaaw ñaari at ak genn wàll ba mu ko fi jëlee. Ah, c'est ça donc ginnaaw 2019 ba mu ko fi jëlee. dinañ ci dalsiwaat ñu tuddee ko la résurrection du du premier ministre ndegem ba mu jëlee dogal keroog ca conseil des ministres du 24 novembre mu des nag projet de loi bi nga xamante ne dañ ko soumettre waa assemblée nationale. fu mu nekk nii nag réew bi yëpp di xaar euh, décision assemblée nationale boobu noonu pour ñu voter euh, projet de loi boobu wala déet. Euh, donc secrétariat général de la présidence nag ci la ñu jóge woon mooy <laughs> mooy ban mooy bu Mahammed Boun Abdallah Dionne doon doon occupé donc keroog ca mai 2019 gannaaw réforme constitutionnelle ba président Macky Sall encore daal di proposé à l'Assemblée nationale ba ñu instaurer régime présidentiel. eh bien ñu daal di supprimer poste premier ministre boobu nga xamante ne kii di Mahammed Boun Abdallah doon euh, incarné mai 2019 ñu daal di koy nommé ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République muy mel euh, comme nu ko waxee réforme fantôme lay doon ndax depuis lors euh, géej nañ gis kii di Mahammed Boun Abdallah Dionne mu impliqué wu mhm. ci ci mbiru gouvernement bi alors ñu ñëw ci fonction ak rôle premier ministre la premier ministre lan président de la République moo koy nommé moom premier ministre mhm. et puis premier ministre bi itam am na possibilité di nommé moom mooy nommé ak ak euh, concertation gannaaw concertation ak président de la république ñu nommé itam euh, membre gouvernement yi nga xamante ni ñooy et puis moom mooy conduire di coordonner action du gouvernement bi daal maanaam moom mooy en quelque sorte le président de la république ci euh, fonction mm-hmm. te pour l'histoire en 1960 gannaaw Sénégal jëlee indépendance am et eh régime parlementaire bicéphale la président du conseil moom moo fi donc c'est l'équivalent du premier ministre kii di Mamadou Dia euh, moom moo ko nekkoon alors Mamadou Dia moom politique économique ak intérieur bu dëkk bi bu Sénégal la doon gérer kii di Léopold Sédar Senghor nekkoon président de la République doon gérer politique extérieure loolu waral daal seen diggante demeetul woon noonu ba 1962 étant donné que président nag moom amul woon possibilité daaneel ko il fallait que mu jaar ci assemblée nationale pour ñu mën a voter euh, motion de censure noonu la daal di demee 62 ñu daal di voter motion de censure bi moom du

ba atum 1983. Euh, mm-hmm. aywa donc atum 1983 Moustapha Niass doon jël après euh, kii euh, en tout cas succédé à kii di Habib Thiam moom nag daanaka yàggul leen ci dellusiwaat du 3 au 29 avril avril 1983 la daal di nekk premier ministre la même année di supprimer poste premier ministre premier ministre régime socialiste yi donc Habib ba mu euh, wàccoon euh, cédé la place à Moustapha Niasse c'est dafa xaar dafa daal di xaar ba 8 avril 1991 pour doonaat premier ministre euh, balaa donc le 3 juillet 1998 kii di Mamadou Lamine Loum mhm. donne le premier du Sénégal jusqu'au du gouvernement du Sénégal jusqu'au 5 avril 2000 mu doon en tout cas période boo xamante ne dafa correspondre ak dernière période du régime socialiste fii ci mhm. Sénégal loolu waral Mamadou Lamine Loum moom mooy le dernier premier ministre bu régime socialiste euh, jot a am alors euh, le record hein, le record la ñu wax pour le régime Wade parce que le régime Wade moom euh, juróom benn premier ministre en ans mm. ci fukki at ak ñaar euh, kii di Moustapha Niass keroog ba alternance di am moom mooy daal di njëkk doon premier ministre en tout cas du 5 avril 2000 au 3 mars 2001 après Mame Madior Boye doon euh, jël jël en tout cas la succession du 3 mars 2001 au 4 novembre 2002 moom Mame Madior Boye donc nekk la première femme nommée premier à ce poste premier mm. ministre donc voilà donc kii di Idrissa Seck daal di ko remplacer moom mu toog fii du 4 novembre au avril 2004 de à 2007 moom mu euh, longévité ci régime libéral bi. Mhm. et puis Cheikh Hadjibou Soumaré daal di koy remplacer gannaaw Macky Sall nationale présidé ko Souleymane Ndéné Ndiaye le dernier premier ministre du régime libéral mu le seul régime aussi à ne pas avoir supprimé le poste de premier ministre. on fait un mhm. petit récap Marcel mhm. euh, nombre de premiers ministres Sénégal am euh, ba alors euh, déjà trois premiers on va revenir déjà ci euh, ba Sénégal nekkee euh, deuxième alternance ba ñu amee deuxième alternance ba léegi mhm. la République donc Abdoul Mbaye moom moo daal di nekk premier ministre Aminata Touré nekk itam deuxième femme à être nommée à ce poste après Mame Madior Boye et puis Mohamed Boun Abdallah Dionne moom du 6 juillet dans l'histoire, en tout cas 15 nominations de Premier ministre depuis euh, l'indépendance jusqu'à maintenant donc ñuy xaar peut-être Euh, une une seizième nomination dans les euh, dans les prochains jours ñu jeexale ci nga xamante ne il a fait deux petits tours et puis s'en va <laughs> euh, il a été premier ministre sous Abdou Diouf doon wax sànq du 3 avril au 29 avril de la même année 1983 et puis daanaka dafa nekkul sax matul sax benn at mm-hmm, donc bii matul benn benn weer balee matul benn benn at il a été premier ministre sous Wade durant kii di Mame Madior Boye ko di ko <laughs> beaucoup euh, Marcel euh, Chérif euh, lan moo la gën a marqué ci histoire premier ministre yi boobu ba léegi jaar nañu ci régime socialiste dem nañu ci Abdoulaye Wade ñëw nañu ci Macky Sall lan moo la ci gën a marqué bon li ñu ci gën a marqué mooy président du conseil bi premier ministre bi njëkk am ndax la ca mujj mën nañoo jàpp ni c'est dramatique pour le Sénégal parce que ñu bëri jàpp na ni sax jafe-jafe yi ñuy dund yëpp looloo ko waraloon mooy diggante Mamadou Dia ak Senghor la ci am ba ay tëj kaso am ci. koo xamante ni finalement ba mu ci jógee sax gis nga ay bëtam muuru nañ ci ak jafe-jafe yi mu dund muy loo xamante ni quand même Sénégal mi ngi koy regretté boobu ba léegi que ñoom xëy na buñ àndoon liggéey lii tey ñuy wax ay constitution yu ni salfaañeek ak ay jafe-jafe yi mu ci wàllu koom duñ ko dund donc man euh, je pense que épisode boobu moom mu gën a marqué ci cette histoire de premier ministre. Mm-hmm. Euh, Malick Thiandoum. Euh, ba léegi spéculation yi tamit waat na c'est vrai que wax nañ histoire bi et waaye jamono ji itam fas yéene nañoo spéculer encore une fois di xaar kan mooy nekk premier ministre. waaw man nag euh, li ma njëkk a moom balaa may ñëw ci loolu sax mooy. Mhm. Euh, jigéen bi njëkk nekk premier ministre euh, muy. ki nga xam ne moo di Mame Madior Boye. Mhm. dafa marqué woon esprit yi ci dal gi. marqué woon esprit yi ci également xam ba mu nekkoon jigéen bu njëkk bu nga xam ne jiite na gouvernement ci réewum Sénégal loolu amoon na solo waaye Mimi Touré yi tamit bi mu nekkee premier ministre ak on accélère la cadence boobu. Mhm. moom tamit marqué na marqué na bu baax marqué na bu baax esprit yi mais liñ ci jàpp rek moo di ni ci régime Wade mosuñu supprimer li nga xam ne moo di poste premier ministre donte moom moo avalé au moins si premier ministres ci li nga xam ni moom moo di euh, ak palam euh, Macky nag ñi ngi koy xaar kan mooy nekkaat premier ministre ndax opposition lay jógee ndax ci euh, mouvance présidentielle bi lay bokk li wérta wër ndax jigéen la ndax góor la hmm. ndax góor lay doon ndax jigéen lay doon hmm. li Marcel naan ndax dinañ ko woteeg duñ ko wote loolu moom defe naa ne laaj bu yàqu la ndax wote daanaka am na ba pare dañ koy wote hmm. ci euh, kanamee dinañ ci xam dara ndax li ci kanam rawuli bët. merci beaucoup jërëjëf Marcel pour cette leçon d'histoire encore une fois mm-hmm. euh, mu fàttaliku ñu lu bëree bëri merci dañuy jàll léegi ci euh, beneen rubrique muy de quoi est-il le nom